mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di bis boo xam ni bisu mbégte la bis boo xam ni bisu lekk ak naan la di yow man akli wa shurbi loolu ci ndokkeel di ñaan suñu borom asa wa jalla tabaaraka wa taala ñu teewe ko ati at te lépp ànd ak jàmm ak salaam waaye ñaan suñu mbokk yi nga xam ni ñoo jiitu ci ba sàq yal na yàlla yërëm leen jéggal leen kon ab jullit ci boppam war nay sant yàlla ci yu mel nii ndax fekk nga ko am na ñu ko fekkiwul kon yow mi ko fekkee war ngaa sant yàlla dëgg-dëgg cant te xam ni li la ba du sa njàmbaar ñoom ña dem li leen yóbbu seenu yaabus yàlla rek la kon alhamdulilahi rabbil alamin su ko defee mbokk xam ni kon bis bii bisu mbégte la bisu lekk naan la waaye bisu ndokkalente la waaye bisu balonte àq la waaye bisu seetante la bisu nemmekonte la bis la boo xam ni sopp nañ loolu kenn ku nekk sa mbokkum julit mi nga dendal nga ne ko baal ma xaq mun la baal naa la te la ngay waxatim muy loo fas sa xol am na solo lool nañ baran ci xaq àq nag moom mooy yi nga xam ne ay kàddu yu ay kàddu yu sew la yooyu moom baal ma xaq man man man man man man mën na ko faxas mooy da ngaa jum da nga koo jëw wala da nga koo waxal loo xëy amul loola bu fekkee ne la baal naa demee dëgg lool loola naa denc nag ba mu des nag jël yi fi jàmbur jël yi fi jàmbur moom bokkul ci baal maaq baal naa ndax sëriñ bi nee na si jawwur na fiis ki nga jël alalam moom bala mu laa baal danga koy delloo ko baal kon àq yi xam ni kon àq yi kaddu yi jóge ci ci ci ci làmmañ jëm ci mbokkum jàmm te kaddu yi néexu ko boo ko nee baal ma xaq mun la baal naa la yàlla mën na koo far ba mu des nag la nga xam ne moom dangaa jël alalam moo tax jël alal lu diis a diis la moo xam lu mën a doon nag kon boo ko jëlee ci moom soo ko nee baal ma àq mun la baal naa la bakkaar baa nga lay su ko defee mbokk yi dañoo dugg ci weeru tedd di weeru koor mu mel ni kon dañoo nekk ci tool bi bay kenn ku nekk indi saw jiwu ji ba mu noppi topp ca di bay lañ ci war a góobee nag ci tool bi mooy at atuqa mooy ragal yàlla kon képp ku bay sa mbay nangu mooy may mi amee nga ci jàpp ak ragal yàlla ndax suñu borom mu wax kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala sin min qablikum laalakum tattaquun kon suñu borom dañoo nattoo koor gi ngir ñu ragal yàlla kon nag képp koo xam ne kon jëlee ngi ci koor gi ak ragal yàlla kon sa mbay nangu na yàlla na ko jariñoo kon am nga bénéfice moo tax waykat bi nii يا ya أيها Muslimu, هل شهر الصيام أغلق عنك بتقى باب الإيام waaw yow ndax jullit bi mu ne ah mu ne ko ndax weeru koor wii ragal yàlla gi nga ci fàgg woon mu ne ah mu ne ko maa fekkal na la bunti sawara ab laaj la de ndax bu fekkee de da ngaa woor niñ la sant niñ la sant nga ni ni ko wax sa ci di sa kem kon bu kon ci biir jaamu yàlla gi am da ni ko ak ragal yalla mo la mo la musal ci sawara kon ci nga ci waaye ki ki la wor nag anda ak yi rek maanaam bàyyi lek gi bàyyi naan gi waaye yéen yëpp bàyyi wuute dara suñ tubaab leeral na ko nee na kooku la am aku mar ëllëg du ca pay moo tax kon mbokk yi kene ku nekk yaangi seen ak pay gaañ ñu dañoo dépensé seen i ci bakka ba di xaar yu fay leen waaye am na ñoo xam ne duñ fayu de waaw am na ñoo xam ne bu ñu bu ñu wootee liste bi du duñ leen woote lu tax ba ñu wóor wóorul ngir yàlla bi ci topp mooy la lañ santaane ci koor ga defuñu ko kon nag bu fekkee nag bàyyi nga lekk bàyyi naan waaye li yàlla du santaane ci koor gi nga moytu ko moytu woo ko na la wóor doo ko pay loolu nag mbokk yi mën naa moytu kenn ku nen nag yaa ngi yaakaar yàlla yàlla boole ci nag ñooy fayu na ndax ñooy fayu moom moo ñu tegoon ci mu mustaqim kon daal mbokk yi nan góorgóorlu baax a baax te am ni koor gi dañ cey nekkal doon góorgóor ci jàmm yàlla di jàng alxuraan di di dimbali ka nga tane lépp lu baax yaa nga ca nga la waaye bu koor gi jàllee jàmm yàlla jeexul de jàmm yàlla jeexul de jàmm yàlla ba kare ngay faatu kon bu fekkee nag loolu nekk nga di lu mat fanweeri fan yaakaar naa say cër war na war na caa laaj kon war ngaa bu koor gi jeex itam la nga nekkan ci lu baax nga continuer ca loolu mooy résultat weeru koor ni nga xam ne sa koor nangu nañ ko ni ñu koy xamee mooy bi nga diggee ci weeru koor la nga la nga tàmbali ci lu baax da nga wéyal képp koo xam la nga tàmbali ci lu baax wéyal nga ko jàpp jàppandi kon sa koor nangu na waaye képp koo xam ne kat bi ñu waree ah la nga nekkal ci sofaan lépp da nga ko tàmbaliwaat loolu mooy war di koor koor ga dara ndax koor gi li muy jaay mi ragal yàlla ragal yàlla mooy lan jëfe ndigal bàyyi tere yow kat nekk nga ci safaan waaye bi koor gi ñëwee da ngaa bàyyi lépp wursu bu mu mag sol ko bu dee jigéen ñi sol seen i mbëlfa muuru yor seen i kurus di tocc tocci di góorgóorlu waaye bu koor gi jeexee na man daal comme lii tàmbali naa ko neex naa ko wéer ndax lii am na solo loolu mooy wane ne kon sa koor gi yàlla nangu na ko kon nag mbokk yi koor gi moom résultat la boo xam ne li muy li muy wane mooy ragal yàlla képp ku ci am ak ragal yàlla na la wóor ni sa koor jàll na képp koy amu amu ci ak ragal yàlla nag koor ga mara xiit bu cam yan musal kon nu góorgóorlu tey balante àq te kenn ku ne nga seet sa mbokkum julit ndax seeti nit dafa am solo ndax yàlla nee na nit bu jógee seeti mbokkum julitam nee na séediwu ko man la seet si kon rawatina ñi nga xam ne dañoo tëdd ci la la hôpital nga dem fa ndokkeel leen ñaanal leen yàlla ñu jóg ak jàmm dellu si dig si si si si seen bopp baax na ci loolu su ko defee tam dimbal ndimbal li nga xam ne dañ daan nekkan daan dimbalee ci weeru koor Dan lamb sa poos di dimbali wala ñi nga ñi nga bu koor gi jeexee noonu ko wéeru ndax lu bax doy de comme nak lu bax doy kon dañ ta wara sax dak diko def ndax jam bi di fig mi ngi góorgóorlu di jamu yalla di dimbali mbokkum julitam yàlla ya diko dimbali ya sa sam leena ma maa al abdu fi awli aqi wala ma ma daama al abdu fi awli aqi yuinuhu allah limit jaam bi mi ngi sax di dimbali ab jaamam yàlla di ko dimbali kon nan sax di dimbalante ndax ndimbal mun a ñàkk ndax ndimbal du xaalis rek nit ki mais ko mën na ko dimbali ci yu bëree bare bare bare mooy mën nga ko tànn ci xel nga dimbali ko mën nga ko tànn ci doole nga ko mën nga ko tànn ci maanaam xam-xam nga dimbali ko kon li ñu war li ñu war a dimbalee jaam bi bare na lool nit ñi doo jàpp ne alal rek moom mooy dimbalee déedéet xam-xam dañ ciy dimbalee kon kenn ku nekk la nga sa morom dee ko ci dimbali ngir yàlla ndax soo ko defee ëllëg da nga dajeeg ndim ndimbalu yàlla te yàlla rek moo moo am ndimbal te yàlla ku mu dimbali am ndimbal kon ñoo ngi yàlla suñu borom tabaaraka taala weer wi nga xëy génn nañ ko muy weeru koor lépp liñ ci jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla nangu ci barkab Cheikhul Khadim lépp loo xam ne ay njumte la yu ñu def ci weeru koor wi yàlla ko yàlla jéggal bu yem ci njéggal gi yàlla ko soppi aw yu dencee ko di ñaan ñi nga ñoo tëdd ci tëdd ci lakkale hôpital yi yàlla yàlla seen bopp ñu yóbbu dem seen yitte ñi nga xam ne am ay yitte yu leen jaaxal mu yitte yoo xam ne lislaam nangu na ko yitte yi yàlla na ko ñaan yàlla suñu borom tabaaraka taala mu def ci réew mi jàmm yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla yàlla def ci réew mi jàmm ci barab Seex jàmm ci ci lépp xaj képp ku toog ca barab di jàmm yàlla am jàmm kon nag comme jàmm nag ci la mën a jàmm yàlla nan ñaan ci réew mi jàmm te cay dox di ca baax ndax jàmm moom mooy lan mooy lépp loo xëy day indi jàmm nga ne ca lépp loo xëy day day yéefi na nga génn ca ndax suñu borom nee na jàmm lépp ci ci lépp xaj waa aw ay baaxul ndax soo ko taalee yow yow moo ko taal doo ca mucc kenn du ca mucc kon te suñu suñu yoon saa salaam nee na suñu borom rëbb ko yee fitna fitna mooy lan di wax wax doo xam ne mën naa taal ab dëkk di wax wax boo xam ne mën naa yàq ak bokk yooyu yooyu nañ ko nañ ko moytu nit koo xam ne yàgg-yàgg da ngay dee damay dama naan ku ñàkk boppay faat looy def war moo ko xam kon bu la nit ñi dugalee ci nga wax loo wër wax wala nga jëf loo wër ta bi bis dina ñëw ñu yóbbu ci àll ba suul la bàyyi la ak yàlla nga ne bind bu boobaa an an di dina wax loo loo wër ta wax dina ko jëf loo ana ñooñu yàlla rek ngay wéttal kon naan ragal yàlla nan jaamu yàlla te wéeru ci yàlla te yaakaar yàlla lii kat moom la suñ tubaa jàngale kon ñoo ngi jégalu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ku amul place dugal ci biir jumaa ji portable bi ko amul place dugal ci biir jumaa ji ku amul place dugal ci biir jumaa ji